ginnaaw bu ñu ñaanalee Serigne Cheikh Sidi Mbacke moom Serigne naa ni ko ñi fi jaar waxe moom bu sunu xel demee moom ñun ñëpp rek war nañoo gën a jàppaat liggéey bi ndax ni ko Sidi waxee léegi rek bu fi nekk ne ba léegi ne jàpp nañ ni weesu fii ndax pas-pasam te fu mu masaa toll dañu daa wax ni liggéey bi ñoo ko war a liggéey buñ ci xaar kenn kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax kon xam naa soññe yi moom fi ma koy jiite fi mu koy jëmale mooy ñi nga xamante nii man ak ñoom ñoo bokk fu ñu féete muy sëñ Abdou Lahad Diop jëwriñ Cheikh Mouhamadou Lamine Touré euh, sëriñ Balla Gaye Baara Touré ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bureau de chasse yi nga xamante ak sëriñ Gouda Guèye nga xam ni ñun ñooy ñi nga xamante ni ñooy xelal kuréel gi ñun dañ ci am taxawaay boo xamante nii jàpp nañ ni kenn amu ko ci ndax kuréel gu toll ni Touba Bilal jëf jël bu ñu leen ne yow yéen yéen a leen di xelal nga xam ni fu xalaat mën a jógee dina jaar ci ñun joxe ci seen xalaat ba noppi ñu door koy wéyal kon ñun am nañ ci liggéey boo xamante nii bu mag a mag a mag la la ca dolli ko it daanaka li ëpp sa la ci wax ji moom mooy lii ñu jàkkaarloo rek soññee bi itam mi ngi jëm ci ñi nga xamante nii ñoo ŋànk bureau yi bureau de sas commission yi jaayante yi nga xamante nii daan nañ ko def ci bis bile buñ ko fàttee nañ ko bàyyi xel ndax cotisation yi muy priorité bi kenn ku nekk ci ñun da nga war a dagg douze mille ak carte membre treize mille muy treize mille francs boo ci noppee nag nga jaayante jaayante nag coobare la waaye nag ginnaaw daa doon loo xamante ni at yu bari ñu ngi koy def ba fekk ko den nañ ko daan defee nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax kenn ku nekk xool la nga xamante ni mën nga koo jaayante rek nga jaayante ko ngir jëmi sëñ Abdou Lahad bu ko defee cotisation itam ñu bàyyi ko xel bu baax ndax wax dëgg yàlla bu ñu ko xoolee section 2024 bi ñu nek cotisation yi wax deug yalla mi ngi dox naxam waaye mënoon naa gën gaaw te ni koy faral di waxee rek dañ ko wara bolé ci itte yi bi la jëf jël cotisation yi da bokk ci itte yi ndax mbar mi nga xamanteni mom lañuy def defar bis bu aggé kenn ku nekk ci ñun di nga xamni 13000 francs yi ñu la doon laaj wax deug yalla ñak ko joxé waaye mbaar mu toll nii wala liggéey bu toll nii ñu koy liggéey ci Touba Belel gii ñu liggéey ko ba mu àgg wala ñu liggéey ko ba mu toll fii te sa dërëm defu ci kenn ku ko mën a def ci ñun war ngaa seetaat sa bopp Seydalaa kon nañ bàyyiwaat xel liggéey bi te xam ne lii ñuy def ab xaalis a koy def kenn ku nekk da ngaa làmb sa bopp xool li la Sëñ Abdou Lahad defal nga cof ca ca la nga a ca la mën a avance ndax Sëñ Abdou kenn ku nekk ci ñun defal nañu loo xamante ne nii mënuñu koo fay kon nag nan la ñuy def di ko ko jéem a fay ci dëkkam bii ndànk-ndànk lépp loo xamante ni dañ koy yëkkati ngir dëkk bii ñu def ci suñu kem kàttan kon nañ bàyyiwaat xel liggéey bi nañ bàyyiwaat xel cotisation yi surtout loolu man fi muy gën a taxaw mooy cotisation yi nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ndax kat wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni ñooy laaj leen war lépp ñu ngi koy def ñi ngi wax ñi ngi woote ñi ngi joxe ay numéro waaye ñi leen di jox ñoo war a bàyyi xel liggéey bi treize mille francs amul kum kum të ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko war a joxe fii jataay bi kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax li koy waral nag bokk na ci garaawut soreegul amul problème amul problème jooju nag mooy mujj doon problème ndax la tax muy mujj doon problème mooy boo war a joxee treize mille francs naan amul problème amul problème ba at mi jeex nga jàllale moom at andi nga problème parce que boo ko joxee dina dina baax ci liggéey bi waaye loo jàll weesu ko ñi nga xamante ni ñooy avancé itam nañuy góorgóorlu jéem a matal. parce que liggéey bi du ay caaxaan xaalis joxe ko du ay caaxaan kenn ku nekk ci ñun li ngay joxe da ngay sacrifier sa bopp ngir di ko joxe. ni ma koy faral di waxee rek sunu waajuroo moo ko daan wax xaalis fa muy jógee bu fa méttiwul fa muy jëm du fa jariñ dara kon nañuy nañu nañu nañu nañuy sacrifier sunu bopp ci liggéeyu seen laxat bii ndax lii dëgg la dañuy wax ne Sëñ Abdou Lahad la ñuy liggéeyal waaye suñu bopp lañ koy defal ndax bu noppee ñoo ciy jariñu bu noppee waa dëkk bi ñoo ciy jariñu kon kenn ku nekk ci ñun war nga cee xar sa tànku tubéy ba def la nga man ko def na nga man la nga mën nag wàcc waaye dafa am loo xamante ne nii daa tegewul fenn du juddoo cib dëkk màgge ci dëkk ne ci biiru dëkk ñu fay liggéey liggéey bu tool nii nga di ko romb gauche droite naan gaañaa nga ca loolu amul njariñ gaaña da ngay fexe bokk ca gaaña léeg-léeg man ma dégg ko ni man liggéey xaw ma ci dara loolu dama koy contesté xam nga lu tax même kii nga xamante ni mooy coordonné bu la waxul yow nga dëkk ci dëkk bi romb liggéey bu mel nii même maçon bi liggéey ci bi ñu liggéey sax war ngaa dem ci moom ne ko lii nu mu demee ba fekk itti dëkk bi ñoo itteel na la waaye toog fa nga toog naan man waxuñu ma ci dara mënuñu kenn ku nekk ñu dugg si biir kër ni la jàpp sa loxo ni la kaay xool liggéey bi liggéey bii kenn umpale du ko ci kenn umpale du ko ci dëkk bi kenn umpale ko ci koñ bi waaye toog fa nga toog naan kenn waxuma ci dara kenn waxuma ci dara mooy lan romb nga maçon yi ñi ngi liggéey bâtiment baa ngi jóg ñi ngi jaxase ciment bi même buñ la ci waxut dara jàddal laaj lu xew fii ñu ni kat mbaar la ñuy liggéey luñ cay def xaalis la ñuy laaj cotisation luñ ñaata la ñuy cotisation treize mille francs fas naa ko yéene joxe maa joxe junni bi maa joxe ñaari junni yi matal naa waaye nañ bàyyi xawma ci dara nañ bàyyi sama yoon nekku ci nañ bàyyi kenn waxuma ci dara léggéey bi kenn ëmpaleetu ko ci dëkk bi kenn ëmpaleetu ko ci tund bi kon pas-pas bi rek moo ñu dese sëñ Abdou Lahad Mbacké ne daa am lu wax daa wax ni mbir boo ko bëggee bu noppi da nga cay boole ak da nga cay boole ak dogo ak dogo mooy lan la nga bëgg nga dox jëm ci rek loolu moo di dogo kon nañu am ak dogu ci mbaar mii balaa nag ni déwén ñu joxe caabi ji buñ ci dogee mën lañ ko waaye doge gi nag day ànd ak day ànd ak dogo ak ak pëseef moo ne lampoos yi rek. lu wax ji rafet rafet rafet rafet rafet lu mu neex neex neex neex neex te ñu làmb suñu poos yii mbaar mi du noppi mbaar moom wax ji waxi kese àggalewu ko wax ju rafet àggalewu ko làmb poos rek moo koy àggale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di wax ne képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal sëñ Abdou Lahad de war ngaa gën a góorgóorlu ndax sañ Abdou Lahad la waxoon ci sëriñ Touba moo nekk ci moom dafa waxoon ne sëñ Touba ko yàlla booleek moom sama xel war naa dal waaye képp koo xam ne tamit yalla boole na ak seigne abdoulat sam xel war na dal leeru Touba nga gor gor lu ci mom bu baakha a baax di ñaan seigne sidi mu yàgg fi <clears throat> di ñaanal seigne Cheikhouna mi nga xamne moy mooy boole ci kër gi timit ma ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wër wax deug yalla ah, di fàttaliku sama xarit ba seigne Sidi mënuma ñàkk ah, tuddu ko yalla nako sun borom yokki leeram seigne Sidi seigne Cheikhouna di wax ah, liggey bi nañ ci gën gor góorgóorlu bu baakha baakha baax li ngeen ko waxe wax wax ju ko gëna rafet dégg naa lépp ndax congee nit mooy belal rek lépp luñ fi woote xam ngeen ko kenn duñu si jiitu kenn duñu si manit insha allahu rabbi lii nañ ko bokk fas yéene di ko dóor mu àgg ñu sumb leneen ak leneen ak leneen fas yéene koo eggale maa ngi sant ñëpp nag suñ njaatigee nga xam ne ñu jiitu timit li ngeen ñuy woo lépp dëgg la yàlla leen yàlla ak sëñ Touba fay ngeen baal ma àq jërëjëf. lépp lu mu mës a liggéeyal Serigne Touba da caa defoon lu mu man ba def ci lu mu mënul koku nak kep ku koy roy war nga am pas pass ci liggéeyal Serigne Touba te liggéey bi ben la ci liggéey Serigne Touba yi ndax sunu wajuri yi Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad moo leen dëxaloon fii kon tay buñu ci juddo ñun ñoo top wenn yoon wudul liggéeyal Serigne Touba kon nak maangi ñaan ci barkeb Seex Abdou Lahad sunu jàmbaar ja képp ku nekk ci jotaay bi te dara nekk ci sa poos maa ngi lay woo ci jaayante boo xamante ni dañ ko def ngir jëmmi sëriñ Abdou ndax dafa mel ni li ñu soxla manqué na cent trente mille kon nag ñun ñi fi nekk nañ ko tàmbali dox jëm ca rek lu ci ab murit indi rek ñu defal la ko ci ah def ci du të def ji të kon Euh, fekk len ma fi rek ngir jëmi Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Lahat euh, joxe ay jaayante ndax yoonu mourid mok jaayante ño and kon kep ku ko man rek te dara nek sa pos ah, ñoo ngi lay wo ci jaayante yoyu ñu ngi ñaan nak lepp lu ci way jaayante sunu borom dakkal la ci lo ragal te ñoddil la ci lepp lo bëgg kep ku ci am aajo ñoo ngi ñaan sunu borom fajal la ko faj gi gën a gaaw ku ci wéradi wala nga am ku wéradi ñoo ñaan sunu borom saafara ko ñoo ngi koy yalwaan ndax jaayante moom eh, fi lañ ko fekk ci sos yoon wi te du fi ba mukk kon ñu ngi ciy woo ñëpp ndax lii mbégte la rek mbégte la rek waaw sëriñ bi moom ah na ci a def lépp def na kon ñun ñoo ci fas yéene tënku ci ay ndigalam te li mu fi bàyyi rek ñu góor góorlu ci góorgóorlu ci bu baax ndax àdduna amul solo waaye am na solo li tax mu am solo soo fi nekkee di jëf lu baax na la wóor ni am nga solo kon nag ah yii ñuy def nii saddaxatul jaariya la mooy liggéey boo xam ni aw askan dañ koy bokk di ci jariñu te loolu mooy gasub teen tabax jumaa tabax yu mel ni nga xam ni dañ ciy dase tase di jàng alxuraan ak di jàng ay xasiday sëñ tubaay di ko jariñoo ndax nit day soxla ay mbir yoo xam ni da koy jëfandikoo ci àdduna te yii nag lii nag bu àggee sunu sag lay doon ñun ñëpp kon nag ah ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan ah weer wi déwén fekk ñu fi te kenn bañ a manqué te sunu borom defal ñu xéewal yu yaatu yu toll ni géej maanaam yàlla boo leen ci milliardaires yi seexul xadim yi ba liggéey bi ñu fas yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Lahat ñu man cee liggéey lu kawe njortul adduna bi yépp yàlla mën na ko yàlla na ko def ci doole Cheikh Abdoulaye Lahat Serigne Abdoulaye liggéey na ko te gëm naa ni li ñu dugal ci lii Eh, dañuy commencer rek waye Touba belal mom danañ dem ba dess nako ko bu baakha baakha baax ndax li werté wor moy lepp serigne Touba Cheikh Abdou ci Touba belal dekk bi fi lay mujj alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon ñoo ngi leen di jox rendez-vous ah ba déwén nak jamm rek yalla nañ fi yalla bayyi te wéral ñu te wéral njabot gi te sàmm ñu sàmm njabot gi te defal ñu xéewal yu yaatu julit yépp xat jërë jëf jërëjëf sëñ ab laxat Diop ci kàddu yi yaakaar naa leeru eh, li ñu soxla woon bu bu li ñëw li fi daje bu ñëwee suñ borom mën naa dogal la cay des bu dee des la cay des du bari incha allahu taala ñu ngi leen di xamal ni deux tonnes ciment yi ñu leen waxoon léegi tamit benn mbokk taalibe jàpp naa ni ku ñu xam la fii ci dëkk bi ndax jaaroon na fi te yàgg fi lool ñu di ko wax naaga yi muy Seexuna Gay waaye ñu gën koo xam ci naaga yi nekkoon fii ci kër sañ sëñ Seexuna moom sëñ ab laxat moom moo ko joxe ci liggéey bi du tey nag la ci njëkk joxe jiitaloon na ko sax lu yàgg-yàgg ci bi ñuy door a tàmbali waaye kon dolliwaat na ñu ngi ñaan mbokk yépp rek ñu maase def noonu ndax mébét yi ñu gaaw a yegg ci fañ ko natt incha allahu taala ñi ngi sant bu baax ñi nga xamante ni ñooy góorgóorlu ci tasaare liggéeyu Touba Belel jëf jël muy site internet bii di leerug Touba nga xam ni seen yitte jëpp def nañ ko ci Touba Belel ak li ci aju rawatina Touba Belel jëf jël kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm képp koo xam ni niñ ko waxee woon ci biir wax ji rek bëgg nga jot ay xabaar yu tukkee ci Touba Belel jëf jël mën nga yegg foofa loo fa bëgg xam rek wala bépp événement activité bo xamanteni def nañ ko rek duggal nañ ko foofa ñi ngi jégalu mbokk yépp di ñaanal ñépp jamm di ñaan sun borom tabarak wa taala mu bo lañu defal jamm té ñu dajé waat fi té bu ñuy dajé ay ci ci leeru Tuuba muy ci dana toog soñal ñëpp lu baax ay ci ci leeru Tuuba. su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné ci leeru Tuuba te bu leen fàtte وبركاته نعمي الذي كفى الخطوب إلى بيوي سمى ويدور